asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bu sant yàlla julli ci yonentam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu àq tey baalu àq ñëpp di ñaan yàlla di defal jàmm fu nu mën a nekk del soo nañ seen jotaay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale seen site bi ñuy wax Tanime TV oxal bukaaw ala saadaati amwaati tabkil araadi alayhim ka samaawaati mbokk yi tey taxaw seetlu bi mi ngi jëm ci sëriñ Abdourahmane Mbacké moom sëriñ Abdul moom borom daarul muxti xam ngeen ne démb ci àllarba ji la yàlla def li ko soob ci moom ak li mu naroon ci moom yi xamoon ne bis bii dana fi ñëw mu jóge mu jële ko fi moom mi nag mësul fàtte bis bii ne bis la boo xamante ni yàlla daf koy naax saayal ci dundam wala lu mu waxoon déedéet xamoon na ni yàlla moo ko ko waxoon ne ko kullu nafsin saayixatil mawti waaye yonent bi sell bi di yonent bi yàlla bi nee na sunu borom nee na nu uma yantahu anil hawa te sunu borom yonent bi xabaaroon na nu bis bii dina ñëw doy na sëkk ñu ne la yonent bi nekkatul ci kaw àdduna Aboubacar nekk fi Ousmane nekk fi sëñ tubaay génn àdduna borom daaru kon xamoon na ni sëñ Abdourahmaan dina fi jóge waaye nag mu doonoon koo xamante nii jàpp naa ne ñi ko xamoon te xamoon dëgg dëgg dëgg euh, lan mooy doomu aadama ci bind gi ko sunu borom bindoon ak ban contrat la amoon sunu borom da nga xam ne contrat boobu saa bu xëyee bu gontee bu naajee bu tawee da nga xamoon ne contrat bi moo ko bàyyi woon ci kaw suuf moom it doon na ko jéem a remplir muy wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa li yaxbudooni sëñ Abdourahmane jaamu yàlla ab jaamu yàlla la waaye daana jaamu raxmaan abdurahmaan la tuddoon waaye daana jaamu raxmaan ci côté bu nekk nag ci waxtu wu nekk ci tëddam ci naajam ci tawam jàpp naa ne gis nañ ko ba tàyyi muy julli ji muy taw muy julli ji gis nañ ko ba tàyyi naaju tàng jër muy julli ji ñi ko bëggoon a xam bëggoon a fasanteeg moom kóllëre gu dëgër ci jàkka ja lañ daan fasanteeg moom kóllëre bu jullee ñi ko bëggoon di ko siyaar wala bëgg koo gis ci julli ji buy julli ji wala bu julli ji ba wàññeeku ci leen daan dàq ngir man koo gis doonoon koo xamante nii nañ jaamu yàllaam <coughs> ci jaamu yàlla yi lu wéroon la te leeroon nañ ku nekk xamoon na ne amoon na oto boo xamante nii dara tax ko woon nekk daaru moxti lu dul di doxi soxlay jullit yi rawatina ko wéradi diggante Louga ak daaru moxti oto bi daw na ko ba sànn ku ci nekk xamoon na ne amoon na pharmacien yu nekkoon dawr yoo xamante ni ordonnance fa daan jóge sëñ Abdourahmane mooy fayalu ordonnance ya te amut kum la xam la ak kum xamut da ko faa bàyyi woon rek di ca liggéeyal yàlla sëñ Abdourahmane nii ko yàlla melaloon mënul woon a jomb mënul woon a jomb borom daaru lim liggéeyal yàlla lim liggéeyal sëñ Tuubaa lim sonn ci lislaam faw yàlla faye woon ko njaboot gu mel nii gu bokk ci moom muy sët bu mel nii suriyatan tayyibatan tujaddidu ndax janabiyal Mustafa tajtahidu euh, nit la woon koo xamante ni bu fekkee dañ la daan nettali lan mooy tasuuf boo xoolee sëñ Abdurahmaan xam ne nitu tasuuf dëgg ngi nii tasuuf bu sell sax bu la nasee nettalee siira yonante bi di la jàngal sunna boo gisee sëñ Abdurahmaan xam ne ku bëggoon sunna la ku ko daan dundal la sëñ Abdurahmaan doonoon na nit koo xamante ni itteem jëpp mooy nan la nit ñi di baaxee nan lay amee ngërëmal yàlla suñ borom loola moo taxoon daawut nelaw nelaw yu bari daawut lekk lu bari daawut toog toogaay bu yàgg ndax bëgg ngërëmal yàlla di ko wër di ko tuñ tuñ waaye doonoon nit koo xam xamante su ma ne nitu tasawuf la ku bëggoon sëñ Tuubaa la ku ne xam na sëñ Tuubaa ci tasawuf la doon dox ak sunna lil Mustafa nawaytumaa yu jaddidu sunnatul xaraawa inni ahmadu sëñ Tuubaa da yeesal sunna waaye sëñ Abdourahmane mii jàppale na sëñ Tuubaa ci liggéeyam boobu bu baax a baax a baax jàppale na sëñ Tuubaa ci liggéeyam boobu liggéey bu baax a baax a baax kon sëñ Abdourahmane mii moo fi bàyyikoo bàyyi ko amul ko amoon kóllëre nag doonoon koo xamante nii daaru muxti wala yoonu murit bu ñu la waxoon li wàllum kilifa yi faaw da nga tudd sëñ Abdourahmane ci sa baaraam bu dee ci baaraam nga koy lim faaw nga ne sëñ Abdourahmane bu dee daaru muxti faaw nga tudd ko. te doo ko boole ci rancé bi mu bi mu rancé rancé bi mu maasee waaye rancé bu mag yee ca nga koy bokk ñi nga xam ne ñoo ko njëkk a jóg ca rancé booba ca nga ko cay boole kon la sëñ Tuubaa waxoon ne tawaytu tariqal xawmi waxtam ti daayi wala xarxaadal xaajaati bi raw di sëñ Tuubaa sëñ bu Rahmaan dañ ko yëkkati dafa dafa xam ne bokkut te ñu xëy mu gontu fas yéene daf ñu xëyoon suñ Tuubaa nag day ndamoo ñu mel nii fu mën a nekk ak fu mu ko mën a am rek suñ tubaa day ndamoo rawatina ku bokk ci moom di sëtam suñ tubaa ku jël ab santam war ngaa jël ay santaaneem sant wi da cee def taraanga waaye santaane bi tamit da cee def taraanga ku jël sant wi rek da ngaa jël taraanga ji ñu xam àdd ji saayir nii rek waaye ku jëm sa jëlaale santaane wi jël nga taraanga àdduna ji ak ju àllaaxira ndax sëñ tubaa bu daan ñaan day ñaanal àdduna ñaan àllaaxira mës sa soxla woo rek àdduna di ko ñaan texeeg àdduna ak texe àllaaxira la daan ñaan képp koo xamante ni nag boole woon nga ñaar yooyu na nga dalal sa xel ne danga nga gisee ak te ñu ngi ciy rafet njort lool ne dina gisee ak sëñ Tuubaa dana am njëggalal sunu borom dana am ngërëmal sunu borom te loolu nag ku ko am ci àdduna am ko ci àllaaxira yàlla ñoŋaloon na ko lool mu doonoon ko ñoŋu nag waaye doonoon ko soppuluy tamit ku soppulu doonoon ko feguy tamit doonoon ko tënku woon ci sariya ci lu sariya laaj ne dañ ci war a tënku def ca tënku woon daana nettali ne daanaan leb ay nit sax daana ndikk ko leb dàngam waaye ku ko leb bu waxtu wa jotee dala koy bu ñëwee fay si woon dana yónnee sax di la ko fay si loola da ngay jàpp ne ak ni mu mel da ngay jàpp yow yooyu waru koo lijjanti waaye sariya dafa am ay règle yoo am yoo xamante ni sëñ Abdou Khadir mi wax nañ ne <coughs> ak yéene innamal ahmaalu bi niyaat sëñ Abdou Khadir wax nañ ne bu la masaana bëgg a jox téeméer ñaari téeméer wala bëgg laa jox junni bu la joxee ñaari junni dalay dabluwaat ne la d indi. yéen ji ma amoon perso jox la junni laa amoon te loolu lu ama am solo la ci nit lu ama am solo la ci nit sëñ Abdourahmane daal dem na suñu borom nag moonu waxoon na ne am na ñoo xam da ngeen ne defee ne danoo faatu waaye ña ngay dund ca sunu borom ña ngay dund ci sunu borom gudd fan nag wala fi dañ koy natt ci ay at rek at sàngam at sàngam at sàngam waaye loolu du gudd fan loolu yàgg fi la waaye gudd fan mooy nga def fi loo xamante kenn dootu la fàtte sëñ Abdourahmane kenn dootu ko fàtte. aw turam tàmbali na di yëkkati ko tu ba àdduna buftu suñu borom bi duwal day gën a yëkkati ko darajaam it day gën a yokk te xam nañ ne wala laaxiratu akbar daraja la suñu borom day gën laata yokk daraja ba ci ëllëg yomal xayaam xam nañ ne tamit war a naa làkk sikaraka moo yëkkati turu yonante bi taf ko ci turam yëkkati darajaam waaye sëñ Abdourahmaan darajaam yëkkatiku na ba àdduna yi tukki dañ koy tudd guddi ak di ko tudd bëccëg te kenn du ko tudd di ruus kenn du nettali histoire am di fa gome dara ku topp ay tànkam ni nga gis ne tànk yu sell yu yu xam fu mu ko doon teg la fu tegu la ko doon teg sëñ Abdourahmane euh, yal nañu ko yàlla fayal doonoon na sakk nag ci lislaam bépp waaye doonoon na sakk ci yoonu murit waxoon na ne suñu borom nag dina dem ba jamono dafiy day day raaf day jël xam-xam ci ci ci ci dënn nit ñi dafiy jële xam-xam nit ñi naa xam-xam ñi ko mokkaloon ndax dañ koy fàtte wala du mu ne déedéet du loolu de yonente bi ne déedéet ñi amoon xam-xam te dëggaloon te seen xam-xam selloon ñooñu la fiy jëlee bu yàggee euh, ñi amut xam-xam ñoo fiy nekk ñu jàppee leen ay boroomi xam-xam te duñ ko doon bu fekkoon na rek amal fi nit ñi njariñ mooy bañ fee jóge kon du fi jóge waaye yàlla nag ni mu bëggee lu baax ni la ko bëggee moo nu ko gën a bëgg te gën na koo xam te lu baax lu nekk moo ko baaxal kon mbokk yi nanu gestuwaat moom de liggéeyal na sëñ tubaa ci lépp bi ne sëñ tubaa ndax dangay ngay jihaat wala déet mu ne waa damay jihaat ñu ne ko looy jihaate mu ne taqwa mu ne man ragal yàlla ak xam-xam ci lay jihaat sëñ Abdourahmaan jihaat nal na sëñ tubaa foofu waxam na ne nag sëñ tubaa waxam na nu àdduna li fi jar rawante ak njëkkante lii dong la waxlam bi annama tafaawutul wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira sëñ Abdourahmaan bokk na ca course ba ñu jël pee téere yi sëñ Tuubaa yi xam ci téere yi jàngale la xam-xam yépp te kii na ko tafsir na ko jàngale ko ci olof ba ci matxu yi ba ci yeneen yépp jës bu muwaahi bu muxaddimaat yépp eh, firi na ko téere yi nga xam day jàngale xam-xam risaala maqaama yooyu yépp bam koy def te daf koo def daf cee jaar ñaari yoon ndax daf cee njëkk a jaar taxut bànd ya neex a déglu mu jaaraat ci bi mu demee ba matuwaay yu bees yi amaat mu jaaraat ci sëñ Abdu Rahmaan yal na yàlla fayal na ko waxtu julli daa ko daan fugloo ni muy fugloo ni mu daan fugloo sunu borom ni la daan fugloo waxtu julli te julli ku ko dut fuglu rek daanaka ku nekk ba julli jot nga soog caa nekk yow joxoo julli àqam julli danga koy fuglu bu noppee nga gunge ko ay lawraat la ko daan gunge waaye da ko daan fugloo ni nga xam ne ni la ñuy fugloo ni ki xiif wala muus mi nga xam ne dafa bëgg a jàpp jënax ci kii bi ni muy toog di ko fugloo noonu la daan fugloo waxtu sunu borom bi moo tax sunu borom Euh, li mu def euh, dee dina ñëw ci bette almawtu yaatu battatan wa rubbama yakun saa sawa xillun muxtarama waaye moom nag de bettu ko bett goo xamante ni da ko fekk rek mu fàtte lépp luy dee bett na ko ni muy ñëwee waaye bettu ko ci ne dina ñëw am na ñoo xamante nii nag ba jonne tey dee da leen di bett lan la ma sëñ Tuubaa defal ku nekk war nga koo xool ba xam lan la waaye li li nga defal sëñ tubaa war nga koo xool waaye man sëñ Tuubaa defal na ma teraanga ji moo ma ko jox lépp moo ma yow nag defaloo ko dara loolu nag wax dëgg yàlla ku ci am ndamit it néew na ñu ci dut am ndam boo gisee sëñ sàmbay di nettali ne am na ci nit yàlla yi ñoo xamante nii euh, maanaam mooy yàlla te dem te dem sawa dem sawara bañ mooy yàlla te dem sawara moo leen gënal mooy yàlla dem àjjana ndax bu ñu demee àjjana dañ fay am kersa kon nag ñooñu nag ci la sëñ Abdourahman bokkoon yal na yàlla fayal nu ko. Euh, nit ku bëgg a wax lim baax la lépp lu ko dal sax yaa ko yaa ko catu yàlla bu ko cat njëkk ci bàmmeel yàlla na fa am njëggalal suñu borom yàlla na fa am ngërëmal suñu borom yàlla na fa wéttali ko alxuraan ak sunna si yonante bi ak xasida yi sëñ Tuubaa yi yàlla na ko fa wéttali ko yàlla na sunu borom boole ko ci ña nga xam ne ëllëg day puukare wa jaamo yi muy puukare wa yàlla na ci sëñ Abdurahmaan bokk mbokk yi dem na ñaari waare la nu fi bàyyi mooy dee ak waare la yonent bi waxoon na ko waaye moom ci boppam sëñ Abdourahman ay jëfam ku ci wëlbatuwaat ak waare la ndax da ngeen bokk teraanga ji bokk sant yu bokk nekkoon taalibe sëñ Tuubaa nga gis lim defal sëñ tubaa di ab jóor yow tàmbalee goo sax loolu kersa la ak waaraate la te teraanga ji fépp la ko sëñ tubaa xëpp lay ngor koy mooy delloowaat ko ko rek mooy nekk ca la mu bëggoon loolu nag sëñ Abdourahman nekkoon na ci ñu ngi taxaw fii. di ñaan yàlla daal yàlla na ko yàlla tàmbali eh, di fulal ay jëfam ba bis penc yàlla barkeel li mu fi bàyyi woon yal na yàlla wóotaal ci njabootu boppam ku mën a àgg mission bi mu doon def ñu ngi sant yàlla bu baax ci lépp loo xamante ni dogal na ko ndax borom daaru maamam moo ko daan wax bu nekk niw faatu na mun alhamdulilah diw gane na àdduna mun alhamdulilah kon nag alhamdulilah jumaam na jooju ñu ngi ciy barkeelu di sant yàlla ci dogalam boobu. waaye nag di ko jaale mboolem njabootug borom daaru muxti gépp mi ngi taxaw fii kàddu yi di ñaan yàlla faj suñuy ajo àdduna ak laaxara di ñaan yàlla may nu mujj gu rafet te may nu wérug yaram ak wérug diine ak wërsëg di leen fàttali ne leen sëriñ Sam Mbàkke moom sëriñ Mbàkke sëriñ Sam Mbàkke moom di xalifa sëriñ Mbàkke assu bis bi mu baaxoo ñaanal ak fàttaliku sëñ Mbàkke Astu ci bisu gàmmu bi lay doon mu di ko amale ci Daaru Salaam yal na nu ci yàlla yóbbu wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu.